bu ñu ñëw. Hmm. bala maa dem dinañu ko bàyyi juróom ñaar fukki junni ji. Hmm. bu fekkente ni gan gi safaan ba la. bala moo dem dinañu juróom ñaar fukki junni balaa ak musiba. comme am gan tëral rek moo fa nekk. lii yéen ci wax wax sax ñu ngi toll waxat ma la ñu toll. lu lu lu lu lu ko. affaire bi ñu rek mënoon naa ko boole bi nga bu ñu ñëwee ñu ne ñu tubaab leen toog ne yow ñoo waxee noppi looy bànn man li may wax moom loolu la ko loolu la ko jàpp loolu bu ma gisee bu ma gisee ko fëy masha Allah mm-hmm. ak teraangaam mm-hmm. ak baaxam ak juddu ñun ñu ñaan di wax. baarakallah. baarakallah. ku la mën a wax wax cat loolu lu mën a boo ko nee baarakallah rek affaire bi effacé na. ñu ngi yaa koy def. ñoo leen ko jëlee jëfandikoo. dëkk bi leer gi mu leer. ba dëkk bi ba tey mosu ko leer. waaw. ñoom ku leen di def te suñu nekk nii gaa yi ñoom ñu ci bëri dañuy wàññi seen i at waaye man damay li ma wàññi damay bi cant la ñu nekk nii bu ma leen woon tey tey kenn duñu ak a gàtt déedéet am na loolu doy kon alhamdulilah moo tax man da leeraay bii mu leer fan mouvement wàllu waa Pire ak li ko wër waaw wàllu waa Pire am na suñu kër bu la fay màggat waa dëkk njëge nee na ci yokk ak li ko wër pour li ko wër ndax tamit ñu wàllu àll moom la fi ñëwoon daaw ñëwoon nañu ren tamit ñu fekkaat ñu ñaan suñu borom déwén ak ñaan yor tamit fan ñëw indi participation jox la ko ci gàmm di ko xeet lool lool lool sax mais nag dañuy ñaan at mu jot ñu gën yokk ndax ñii ñu indi ren par rapport ak daaw defe naa am na lu ci yokk waaw am na lu ci yokk ndax jiw yi jiw yi bokk ci woon loola tax ren tey mu yokk ci ñaan yàlla su déwénee camion mooy gaare sax ñu koy yem ba li ñu fay waaw ndax nee lu ko ci gën a neex ouverture bi am ci gàmm ak julli yi ngay julli bi ci jàkka yi ci jumaa yi ci koñ yeeg mel noonu nee loolu moo ko gën a neex ci action bi sëñ sëñ bi di posé nee loolu moom mooy wane ni waa dëkk bi boole na leen te waa dëkk bi bokk nañu di nuyu di jaar jaajëfal tamit sa commission wax dëgg yàlla mention spéciale ñi ñoom beneen affaire la wax dëgg yàlla man moom dama leen a yeb toog parce que man maa loolu nag suñu kilifa rek moo ci nekk mention spéciale ñun ñun moom la ñu sa xam dëkk ak ak yéen kon donc leen ñaan taxawaay bi yàgg ñuy gën a man gën a jàppale sëñ jàppale waa dëkk bi jàppale famille tax siir am ci loolu lañ amoon loo xam naa ko di ànd ak Mamour Mbaye Mamour Mbaye mu ñëw di jàppale Ndoye Bane mu bawal fii mais yeesal la ko ànd ak Abdou Ndoye ma nga ne ànd ak papaan ñu ngi nii famille Mbaan papaam a ngi nii maa ngi ko tuddoo ko tudd ne papaam loo mu ne donc fekk fi Thierno Bane loolu laay wax ndax loo wax mu ne Thierno Bane rek la ñoo xam maam la ñoo xam seen famille ni ñu doxale fekk tey wax dëgg yàlla la ak Assane Aliou mii tamit wax dëgg yàlla moom lépp xam nañ seen liggéey gën allah suñ pap sànq sax man naa wax na dinaa ko wax daf ko la defal lu baax danga koy wax mm. ndax ci borne fontaine cas société tey wax dëgg yàlla amoon naa ci jaaxle depuis des années mm. dëgg yàlla sama demande fayal nañ ma ko kon donc li nga wax rek ci biir sànq mm. gàmm gi dangaa bëgg ku nekk sa bopp man de maa ngi ci sama bopp sànq bu xëyee sama kër waa service yi seen dugg nañ ci pompe ma xam ne rek dëppoo ñu dugg dañ leen faa dañ leen faa kon donc daal ñoo ñaan yàlla seen bu yàgg de wér ba ñaanal commission bi Pape Diop ñoom la ñuy bu baax a baax suñu mag bu baax ji gis nañ ni ci euh, wax nañ ma ci seen groupe whatsapp boobu xaw ma na la ban groupe whatsapp day am ci biir ak taxawaay bi dem gis nañ ñu ko yoo xam ni ci sànni ndaje mbaan bi ndaje dama wax waa mbaan yi ni leen nit moom buy jëf danga koy bàyyi xel nekk naa ne la mu fi jëf ba mu commencé si ambulance ba mu ñëwee si lii ginnaaw dafa ñëwaat tey jii ñu ngi koy parce que euh, bi dafa tiit ndax dëkk bi dafa leer Seydou doon na ci wax coono doo def ànd ko ak sëriñ bële coono waaye dafa piir rek sëñ bi nga jàpp te ku jàppaloo sëñ bi rek yaa ngi jàppale waa kër parce que moom loolu mooy bëgg-bëggam liy bëgg-bëggam mooy ku defar kër ku jàppale waa kër loolu ma moo damay ñaan seen ñu doon naa ko wax ñu ko daal yooyu li ñu bëgg ñoom mooy koo bàyyi xel te moom ñu ko bàyyi xel loolu wóor na waaw kon daal boo leen muy bokk turu papaam ak turu Fadi Mbacke bi di gërëm Massaer Massaer wax naa gërëmaat lay doon ndax moom jàppale bi ñu jàppale Ndoye Bane triché wul defu ci dara ak ñi ma àndoon waaw ñii fu ma gisee Ndoye Bane gis boo ko wóoree ba nga xam ne ñoo teewoo ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mbaam gépp sant na leen gërëm leen wasalaamaaleykum wa rahmatulah.